parce que dama jàpp ni nga mën lañ toll moom bu xëyee wala balaa muy dem dina fexe ba réew mi yëpp defe ne ni que dañ koo bëgg sànq dina fexe ba képp ku bëggoon a def lu bon da ngay xaar ba jour ba muy woote nga programme rek parce que moom ci loolu lay woote ci du pays de droit lañ nekk mu am ku jiite réew mi am ay kuréel yu sànq réew mi ñun ñëpp lañ war a jox cër nekk naa juróom-ñaari at ministre ci gouvernement nekk naa ñeenti at chef de cabinet du président de la république moom tribunal woowee damay dem moo policier arrêté damay taxaw boo bëggee def sama émission politique yéen ñii laay woo moo wax sama xalaat ci war ma laa ko def kenn musuma dégg ma wax ko ñaaw tuumal naa ay nit de mais boo mësa tuumal yoon naa xeex naa politique de mais ku ma sa xeex ci dëgg laa ko teg muy ci suñu camp wala muy ci beneen camp parce que dama jàpp ne que politique ci noonu la war a laloo waaye doo ko teg ci féewal doo ko teg ci xaajale doo ko teg ci tasaare doo ko teg ci yàq xelu nit doo ko teg ci wax lu dëgg ba pare ci woo nit ñi ci fitna ëpp ñu ay nit parce que heure bu élection amee ñoo koy gañ boobaam léegi mais mu amul ay nit ëpp ñu ay nit pourtant fii mu toll nii nii tolloon nañ fa te xeex bu jaar yoon ak xeex bu ànd ak war man ak ngor moo tax tey ñaawoo amul suñu diggante dama koy faral di wax opposition démb ña sa nekkoon ak ñun dañuy toog di waxtaan parce que fii Sénégal fexe nañ ba même bu ngeen déggoo même bu ngeen àndul dina am war bu ci am te kenn ku wax moroomam lu ñaaw lii fi am ci lu bees moom moo ko fi indi moom moo fi indi waxi waasu moom moo fi indi waxi diine moo fi indi waxi région moo fi waxi indi leneen maa ngi ñaan suñu mbokk sénégalais ñu bàyyi xel ci boobu nga ko yóbbu politique maa ngi wax suñu mbokku sénégalais yi nga ay jullit àqal nañu ragaluñu président ragaluñu police ragaluñu gendarmerie léegi ñu bëri yoon nguur taxaw taxaw bii nii dañ ko daan taxawee te ba ñuy toll fa toll mais daan ñu woon def lu ñaaw daan ñu woon wax lu ñaaw daan ñu woon sos bu ñu toog politique ba yàq fi suñuy maam bàyyi fii dama koy faral di wax ay kilifa diine dañoo bokk ci ñuy sàpp réew kenn du fi wax waxi waaso parce que boo demee kër Serigne Touba exemple laay joxe doomam day jël jabaru yaago am jabaru séeréer am jabaru naar am jabaru njaago ñu jur ay doom ñu doon seeni sët teral leen bokk fekk nga dem kër maam Alaaji Maalik loolu nga fay fekk nga dem kër maam Limaam loolu nga fay fekk nga dem ci këru diine boo dem dañuy am taalibe fépp bëggoon na tabax réew bi tabax bu sell moo tax seen wóllëre ak ñeneen ñi nga xam ne sax bokkoowuñu woon xeet wala bokkoowuñu woon région wala bokkoowuñu woon laaj dañuy dañ fay jël soxna wala ñu jël seeni i doom yu jigéen may fa soxna tey Sénégal kenn mënta wax fii laa dëkk kenn mënta wax fii laa dëkk ñëpp nañ ko xool ñii jabaru séeréer lañ am ay tukulóor yu am jabaru séeréer ñii ay joolaa yu am jabaru tukulóor ñii ay joolaa yu am jabaru séeréer loolu la waa ji bëgg a yàq parce que moo fi di wax jooju te jàpp naa ni jàmm maa ngi sant jeunesse sénégalaise maa ngi sant sénégalais yëpp di yàlla bu béy suñuy dëkk bañ xam ni que lu bari ah man de sama bos am naa ci firnde parce que tribunal daan ko juróom-benn weer yoo xam ne nee nañ ko war a too wax lu dul dëkk nañ jàpp ni Ousmane Sonko am na juróom-benn weer yoo xam ne waratul wax lu dul dëkk may góob ba leneen lu ma laa fukki dërëm loolu ci kanam la. après man la contrainte par corps au maximum après ñu xool damay jàpp ni ay xaalis sax yooyu du am importance li ëpp woon importance mooy ñu xam ne kii mi ngi sosal ay nit te tegu ko ci dëkk mi ngi yàq ay dëru ay nit te tegu ko ci dëkk mi ngi wax Sénégalais yi loo xam ni amul firnde te lépp mu teg ko ci loo xam ni ay sos la ñu koy topp ngir diine firnde amati na y construir un me